la be Ibadah Ibarat, Ibarat. la la

la nu gindeef doonu reer faan dul reer asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant bu baax sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaan suñu borom guddalu fanam wérali cëram di ko ñaanal jàmbaaram jii di am ni moom sëñ Modou Mbend Fall suñu borom guddalu fanam wérali ay cëram ci barke Cheikhul Khadim ñoo ngi seeral murti suñ tubaay rawatina Baye Fall nag di sant góor ak jigéen mag ndaw ñëpp ñu gis yéen ngi ci ndigal li nekk ci liggéey bi suba ak léegi fii ci marché Ocass ñu gis ni mu menoon ak caniveau yi ngeen bi loolu loo ci mën a te bu ne murit njëlbeen ga mooy kër Cheikh Ibrahima Fall ma far ma yaasin daawul mu ci mbul sëriñ Touba lépp lu mu bëgg kër Cheikh Fall dana ko def kenn wérantiwu ko muy neex danañ ko def muy métti danañ ko def te lii lu metti amu fi lu métti amu fi de li tax man lu métti amu fi sëriñ bee bëgg te bu sëriñ bi bëggee bu ko santee kër Cheikh Ibrahima Fall am fi mu nekk li may wax rek bàyyi fa lépp amam xëy amam ngont waaye dañoo bàyyi seenam xëy bàyyi seenam ngont jàpp xëyum sëriñ Touba loolu nag képp ku ci nekk nag marché bi doo nga du marché ndigal lii mooy territoire bi ak kaw tëli bi nañ ko bàyyi ngir sëñ Tuubaa nañ ko bàyyi ku ko def am jàmm ku ko deful nag leen lu nekk fekk na nga xam ne lii ndigalul sëriñ bi la ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal suñu jëwriñ yi nga xam si nekk ci liggéey bi suñ borom guddal seen i fan wéral seen i cër ci kàddu gi rek bàyyi màggat Juuf lañ ko wax géwlu ndaw sama xarit yi ma dendeel ñëpp di gudd fan ak wér jërë ngeen jëf taarkàlla billahi min seytaani Euh, bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisaani yafqul xawli alhamdu wa sukru am lillahi ala nabi walidi habdillahi euh, jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Rahima Fall Babul Mouridina euh, jëfkatub Seexul Xadim bi murit bu mag ba bi nga xam ne lépp lu Serigne xox Serigne Touba mos bëgg su toqee ci ab noppam rek dana ko def nam ko bëggee. musa gàntal dara sëriñ bi mu sa wax sëriñ bi ne ko it li may jëfloo mënuma ko ndigal lii nag day ndigal loo xam ne ni dafa bàyyi ko ci ku tedd ki muy Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ñëw tab bi ci sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall mu ànd ko ak rakkam yëpp nag muy ndigal loo xam ne nii li feek ndigal laa ngi bàyyi ko ci Cheikh Mamadou Mountakha di ñëw ci sëriñ Amdi Modou Mbenda ñun Baye Fall yi moom danañ jëfee ndigal loolu kon nag waa kër Serigne bu sa Sakkour leen yore kàddoom waaye nag liggéey bii sëriñ bi dafa fonk ndigal loo xam ne biñ ko joxee magam ju tedd ji eh, dafa bàyyi yitteem yëpp bàyyi soxlaam yëpp mobiliser mboolem taalibi yëpp ñu ñëw àndandoo ñëw ci liggéey bii. na xam ne nii na ko joxe woon ndigalul eh, koor ga ñuy togg ay ndogu nga xam ne ndigal moom saa yi suñu la ko joxee du màggat eh, du xumaagit feeg leen ndigal rek wutuwu ko muy. ñuy saytu wor may Touba lépp lu Serigne Touba bëgg ci dëkkam bi loo xam ne dëppawut ak lislaam nga xam ne moom loo xam ne ni maam dëkk bi moom dëkkub lislaam la dëkkub xam-xam la dëkkub jaamu yàlla la nam ko bind ci euh, Madabul Fawsayni loolee nag lépp képp ko fi def te dëpp ak loola nag euh, sëriñ bi moom fas yéene naa am ay ndawam yoo xam ne ni ndigalam rek la ñuy déglu te danañ ko saytu danañ ko def niñ ko ñu ngi ko ànd ak sëñ Daam Soda ànd ko ak sëñ Jiili moom Serigne Modou Aminta Fall mi nga xam ne nii eh, mooy sët bi njëkk a wuutu maamam ci ci jal bi. ñi nga ànd ak eh, kilifa yëpp ànd ak seex si yëpp ànd ak dongo yëpp ñu fas yéene daal liggéey bii suñ bakkan bii lañ ci teg ni ko Serigne Mountakha bëggee daal fas yéene nañ koo defee noonu te am Serigne Amdi Modou Mbène wax nañ ne. Eh, tu waa mooy liggéeyloo maam am Rahim Fall te maam Cheikh Rahim Fall dana ko def na mu ko bëggee daal ñuy waxal boppam ne ne du ngeen ci am menn ndog la kon ñoo ngi leen di siyaar bu baax daal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu